yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax te ci kenn mag secret ba secret baa sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allah kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 te moom jaam bii sax yàlla jox na ko lim doon bëgg yëpp kon kay wax dëgg yàlla jaam bii di waxta muy sëñ Tuubaa yàlla war na koo doy mu ne aalaytu billahi al azimi al ahsami saa tawbatin min wam iyal muassami aalaytu wéedu naa billahi ci kàttanu yàlla al azimi moom muy aji màgg al ahsami doon ki gën a màgg saa taw batin di borom ak tuub min wam iya ci sama jublu almuasimi la da luñ màggal nee na naa sama lépp ci kàttanu saa borom subhanahu wa moom muy aji màgg waaye doon ki gën a màgg lépp rek alasim la waaye bu dee ci lu tasawuf ñun dañuy bañ nga naan yàlla mooy ki gën a màgg wala mooy ki gën a tedd waaye ci firi mi rek ngir ñi mën a xam ne al ansam ak alasim bokkuñ al ansam kooku moom bu dee ci yàlla ku ne xam ne ne afdalu tafdil la mooy ki gën a màgg moo tax mu ne maa ngi tub ci lépp loo ci jublu la nga xam ne lu ñu màggal la lu nga xam ne daal xëy na mu doon li nga xam ne mooy siñoon na ko borom subhanahu wa taala te mu doon lu màgg nee na mu ngi tuubal saa borom daal di jublu loolu nga xam ne lu ñuy màggal la moo tax mu ne wéedu naa ci kàttanu yàlla moom muy aji màgg doon ki gën a màgg di ko tuubal sama jublu la nga xam ne lu ñu màggal la la nga xam ne daal lu ñu màggal la jublu ga ma ko jublu maa ngi koy tuubal saa borom subhanahu wa taala xaalaytu wéedu naa mooy koo xam ne bàyyiwul dara boppam billaahi ci kàttanug yàlla alasi moom muy aji màgg alasi moom moom moom mi nga xam mooy ki gën a màgg sa tawbatin di ak tuub min waam iya ci sama jublu al muasami ca la ñu màggal la nga xam ne lu ñu màggal la fustu tuufu naa bi maa ci loo xam ne lillaahi ñeel na yàlla xaalixil basar moom muy aji bindi mbindéef yi bi ca loolee mu tuufu wa arta ji a yaakaar talaa sumal bu sar di saxoo mbégte fu mu mën di toll man Sëñ tuufu naa loo ne yàlla rek la concerné moom rek moo ko moom nee na ci loo xam ne moom rek moo ko moom kenn xamut ko te moom rek moo ko xam moo ko moom naa ci ma toll man Sëñ Tuubaa comme génne naa ci loolee te kenn xamut ko ku dul yàlla nee na fu ma toll loo xam ne lillaahi ñeel na yàlla xaalixil basar moom muy aji bini mi defi bi ca loolee mu tuufu yàllaa ko moom moom la ñeel moo ko xam moo kon nag loolu def naa tarka la waarta ji tama yaakaar tala sumal bu sar taqoo ak mbég fu ma toll daal maa ngi yaakaar di taqoo mbégum sama borom subhanahu wa taala awaaniya tàpp na ma al mux nii yàlla muy aji doyluloo ku ko neex fa moom ilayhi jëmee ma ci moom bi karam ànd kook ay tirangam wahab lu xanx diya sama kóllëre in baram raw na li wàcc yi ngir jëmmam ju tedd ja cey mi nga xam ne mooy xool ab jaamam bu ko neex di ko doyluloo fa moom di ko jox ay tirangam nee na tàpp na ma fa moom di ma jox ay tirangam waaw Sëñ Tuubaa tiranga yàlla yi waxoon naa leen dañoo miin këram waaw ñoom buñ leen woowee ñi ñëw buñ leen woow di ñëw mu ne diggante bi nga xam ne si ñoon si woon ci si ñoon naa sama diggante ak yàlla ak kóllëre nee na raw na ba noppi dafa bëgg wax ne rek maanaam dootu réparti ko mukk maanaam daf bu fekkoon ab buum la du dagg waaw kenn du xam lu nekk ci biir moo tax ne waxaan wa ablu bu buumu sama kóllëre in baram raw na li wàccee ngeen jëmam maanaam kóllëre gi ma kóllëraante ak yàlla du ma ko xëtt mukk heure bu ne day gën di raw bu doon ab buum du dog mukk waaw li ma kóllërante ak yàlla jaay jaayante ko sama borom ak kóllëre ga ca asal mooy jaamu ko ba xëy faatu nee na buum ko du doog mukk waxab lu xamante na li wàcc yi ngir jëmmam ah jëmmam rek a tax nag ah mbaaxu yàlla rek bu demee ba raw te du rabartiku nee na loolu mbaaxu yàlla rek la ngir jëmmam la as aluhoo ñaan naa ko alwafa gis nga moom lay firi sax matal kóllëre ga kon mooy kóllëre ga nga xam ne ca alamul arwaal woon bi yàlla ne alastu bi rabbikum xaaloo balaa ba roo yëpp ne ah bu ñu wàccee danañ la jaamu léegi nag ñi nga bi wàccee suuf dañoo dañuy dañuy kon rek di mooy yàlla mooy dañoo war yàlla dañoo war yàlla ndax dañ ko dañ ko ne ko bu ñu wàccee danañ la jaamu kon nag boo wàccee ba noppi te yàlla dangaa war yàlla waaye boo waree yàlla ba noppi sa bopp rek nga war ndax langa nga war moom jàpp nga ne yàlla nga war waaye sa bopp lay dellu yuqaadu an allah wa maa yuqaaduuna ila anfusum wa maa yasoroona bëri waaye di def dara jàpp ne keneen lay wor fekk fekk boppam lay wor rek ndax musiba bu ñëwee ci kawam rek lay këpp moo tax ne asaaloo ñaan na koom yàlla alwafa matal kulle ga wal xinaa ak koom ñaan na ñaan na ko koom bii ci moom yàlla waaye nag wa an yeg fii ni yet ba dana ma fegalal alxanaa a coona xam nga ñaareel boo bëggee matal kullere da nga dajeeg coona boo bëggee am koom nga ki bëgg alal rek ni muy ni ni ni ni ni ni mu cee xëree di ko bëgg ci heure bu ne nu mu mën a def ba am ko rek te sëñ Tuubaa nee na jamono jamono joo xam ne ñii wut alal xoolatu ni ñuy def am yonent bi nee na waat naa ci yàlla ne jamono dana dikk jamono joo xam ne nit na am alal rek waaye du xool alal ji fan bay béyekoo ak nan la fàggoo ndax dagan na wala daganut <laughs> kon loolu yonent bi na koy wax moo tax ne ñaan matal kóllëre ak koom ca moom waaye mu fegal ma coona ndax ñaaral bala am koom wala matal kóllëre loolu fekk coona dab la ci moo tax lu ñaan yàlla rek day gis ne ca kanam ñaan yàlla na ko bu ci coona nar am rek bu mu ñëw fegal ma mboolem coona yëpp mata saa yoo xamee ne jublu na ilay ci man duru ay lor sarrafahu mu wëlbati ko an nii mu wëlis ma wa neex ma est-ce moom yàlla albaru moom muy aji baax moom mu def loolu xam nga yàlla mooy ku baax mu ne saa soo xamee ne ay lor dënmal dënmal nañ ma ngir bëgg maa lor yàlla moo koy wëlbatil boppam man du ma ko wëlbati sax nee na wax dëgg yàlla kon nag yàlla ku baax la parce que su fekkee lor mu ngi ñëw ci man man Ahmadu gis naa ko wala gisuma ko te fekk ba la ma koo gis yàlla wëlbati ko loolu kon dëgg dëgg ku baax buñ koy wax mooy mooy koo xam ne day xam li lay lor balaa yegg ci yow mu fànq day xam lu lay jëriñ bala nga ko soxla bu di la ko ku baax dëgg-dëgg mooy kooku te mooy yàlla naa jeytoo diyente nag moom wa surtout mujj naa saa imaani di boroom ak kullite bi fii ci moom day tekki imaan rek waaye di boroom ak kullite xam nga sëñ Tuubaa moxtu dañ ci gëm yàlla kon doo ko fi ne saa imaan mbir moom mooy boroom ak gëm bi fii ci moom maanaam mooy boroom kullite ci moom am kullite ci moom yëqin ci moom waaw saa mooy boroom kullite bi fii ci moom wooye joodu ta dana tabe li ñal ma bil amaani ci li nga xam ne mooy sécurité maanaam diit na sama borom mujj naa doon ku am sécurité waaw doon borom kullite ci yàlla waaw koo xam ne daal pas-pasam du fecci ku mukk lu rek lépp lépp lu ko boromam dig rek day gëm ne dana ci jot waaye nee suñu borom dana ma tabe li nga xam ne mooy al amaan muy assurance te ak sécurité fu ma toll waaw nee na maa ngi diggante yàlla te fu ma toll maa ngi ànd ko iman waaw gëm yàlla te dëgër lool te yàlla fu ma tolloo daf maay tabe li nga xam ne mooy ak sécurité wasiqtu dëgërlu naa bil xay ci kàttanug yàlla muy aji dund ji alasi mooy ki nga xam ne lay sa yëmoot du faatu mukk alxaadiri mooy aji am kattan ji al mudabiri tey aji dogal mbir yi al muhyi tey aji dundal ku ko ku ko neex al mumit tey aji faat ku ko neex nee na naa ci kàttanu yàlla muy aji dund ji te du faatu waaw kooku rek moo mat a dëgërlu defe naa ne koo sukkandiku ku dul yàlla day faatu waaw kooku léegi bu faatoo ci kan ngay sukkandiku yàlla nel yàlla boo tontu li itam kon nel yàlla tontu li mooy yàlla kon koo xam ne koo mën a wéedu rek kooku dana faatu kon nag wéedul ci koo xam ne moom du faatu Sëñ Tuubaa nee na naa ci kàttanu yàlla muy aji dund ji nga xam ne waaye mooy ki am kattan te tëliwu dara waaye mooy kiy dogal mbir yi waaye ku ku ku fi des di dund yàlla lay dundal du wut sa jàmbaar du wut sa mbaax du wut sa bon waaw bul jàpp ne ña faatu ñëpp yaa leen gën déedéet bis dana ñëw danga leen fekk de waaye ku faatu itam kasaalika moo la faat ku faatu ku ne sa dig baa jeex mu faat la waaye ku fi des ku ne sa dig baa jeex rek moo la fi bàyyi al muhyi ak al mumit masi atu laala mooy dundal ku ko neex mooy rey ku ko neex ndax nu mu ko neexee rek alhamdu mboolem xeeti cant yee ñeent lillahi aji sax la ñeel yàlla ala si yàlla mi nga xam ne laa yaf naa du jeexal mukk waaw nas aluhu danañu ko ñaan nag ñun sëñ Tuubaa alxesmata ak kaaraange mi maa xiif naa ci lépp lu nuy ragal nee na mboolem xeeti cant ñeent yëpp jox naa ko yàlla mi nga xam ne du jeexal mukk darul xaajal sax ñeen dañu ko naan dañu ko ñaan nag xes ma mooy barab boo xam ne buñ ci duggee rek lépp lu ñuy ragal nun Sëñ Tuubaa danañ ci mucc ñeen ñu ngi ko koy ñaan awonsu danaa muslu billaahi ci kàttanug yàlla sil xidami moom muy borom jiitu te fu mu tàmbalee wala baqaay ak doon ko fee sax ba faw tëdu faatu min kufrin ci weddi yàlla wa min saqaay ak texee maa ngi muslu ci kàttanug yàlla moom mi nga xam mooy ki jiitu te fu mu tàmbalee mooy ki sax ba faw tëdu faatu li may muslu mu musal moom mooy weddi yàlla lu bon la ak texee di weddi yàlla weddi yàlla moom alkufru mbokkam mbokkam mooy saqaa yi ñi weddi yàlla ñëpp dañuy texee di kon moo tax mu ñaan yàlla musal ko ci weddi yàlla ndax bu ku weddi yàlla rek da ngay texee di te ku gëm yàlla nag man ngaa texe soo suñu borom def lay toppeex ak xonsu danaa muslu bi lay ci kàttanu yàlla mi na saytaane ci saytaane fil bëri ci biir jéeri ji wal baxri ak géej goo fii awtaan yi ak ci samay biir dëkk nee na maa ngi muslu sa borom subhanahu wa taala ci kàttanam di ci moom comme moomu mu bind seytaane seytaane bindeef la comme man kon moom moom mi bind seytaane bind ma ci moom lay làqu su ko defee mucc seytaane maa ngi muslu ci moom nag ci kàttanam ci dooleem musal ma ci seytaane moo xam bu ma nekkee ci biir jéer ji ak géej gi yëpp wala sama biir dëkk rek mucc seytaane nga nit ki mën ngaa nekk ci dëkk bi nga dëkk te doo mucc seytaane mën ngaa toxla dem ci beneen dëkk sax mucc mucc seytaane waaye boo ñëwee sa dëkk rek yaa ngi gis na seytaane ñëwaat na seytaane ku naqaree la mën ngaa nekk ci ab barab mucc seytaane ngir barab ba du du barabu seytaane waaye man ngaa dem ci barab boo xam ne ak fa nga bayee koo bokkul soo demee nag barabu seytaane lay doon su ko defee mën ngaa bañ a mucc moom waaye moom nag fu mu jëm rek xam ne ne géej ak yi ak dëkk yi ñoo dëkkam yi ñoo ñoo am waaw moo tax ma ne fil bëri wal bax ba fii ko xitaab yi sama waxante ak moom taaliban may aji sàkku min hu ca moom alxuyóor mboolem yiw yi fii safari ci sama biir tukki bi waxadiri ak sama ñàkk tukki bi te mooy sama teew wa fii duyóor ak ci sama biir kër ya maa ngi waxanteeg moom di sàkku ci moom mboolem xeeti yiw ma am ko sama biir tukki bi wax dëgg loolu am na moom yëpp ñëwal nañ ko moom sëñ Tuubaa xéewal yëpp ñëwal nañ ko yàlla maa waxanteeg moom di sàkku ci moom mboolem xeeti yiw yi ci sama biir tukki bi ma am ko wala sama sama teew wala sama biir kër ya maanaam bu ma ñàkk a tukki wala ma nekk ci biir tukki bi wala ma nekk sama biir kër maa ngi sàkku ci moom mboolem xeeti yiw mi rek dikkal ma maa ngi nii di waxanteeg moom di ko ñaan loolu di ko sàkku ci moom yàlla sax def na ko xam na nga may lee ñeel ma yaa mu iidu yow muy delloowaat lépp gannaaw bu ñëpp faatoo nga dekkil leen daje leen ci benn penc xawdan ak delloo ahmada ahmad fii xayri ma ci lu dul la nga xam ne taraktuhu bàyyi na ko bi ahmada ci darajay ahmad neen yow saa borom subhaanahu wa taala na mii di wax ak di waxanteeg yow di sàkku ci yow loolu na nga ko delloo moom ahmad maanaam lépp lu woon jaayante ko ci digganteem ak yow te bàyyi ko ndappat maanaam bu mu dellu mukk maanaam daal na dellu waaw bu mu dellu mukk ci lam jaayantoon ak yàlla di ko lekk wala mu di ak bànneex wala mu di ko xool lépp ci la bokk moo tax ne xab na nga may lii ñel ma yaa ma du yow mi yàlla muy dellowaat lépp awdan ak delloo ahmada ahmad mii di waxante ak yow na nga ko delloo waaye nag fii xëyri ma ci lu dul la nga xam ne taraktuwoo bàyyiloo nga ko bi ahmada ci darjaay ahmad na nga ko defal delloo ko daal boo koy delloo bu ko delloo mu ko ci lan ko bàyyiloo moom jaayante na ko ak yow xaram na ci moom <laughs> wasilati kooku mooy sama wasila ahmad moom may tudd wasalli maa ngi ñaan nga julli bi taslimi ak sëlmal alayhi ca moom fil ali ànd koog ñoñ ña wasit te yàlla na nga dolli taalimi sama jàngale yàlla kooku mooy sama wasila bi dox sama diggante yow comme sama wasila nag maa ngi ñaan di daganti ci yow nga julli ci ma ak sëlmal ci moom mook waa këram ñëpp te yàlla na nga dolli sama jàngale heure bu ne jàngale gi may jàngale Sëñ Tuubaa moom mosu dañ ci jàngale moom wër bu ne day jàngal nit ñi taalif gi rek jàngale la moom taalif buy taalif rek loolu njàngale boppam la mais yàlla na nga dool na sama jàngale rabia sa borom mi aji yareje bi jaahil Moustapha maa ngi lay ñaan ci dara ka ñu tànn ka sëli yàlla na nga jullee ali ci yonente bi bi kulli man ànd ko képp koo xam ne nu mii des na ko askanalee ili jëm ci yonente bi yow yàlla muy aji yareje di aji tarbiya maa ngi la ñaan ci dara jaay ka ñu tànn ka da ngay julli ci yonent bi waaye ak képp koo xam ne méng na ay mbiram yëpp jëm ci yonent bi maanaam la fa yonent bi nekkee woon rek la la fa nekkee li fi saxaaba yi nekkee woon rek nga julliwaale ca moom gannaaw boo ba ma sàkkoo ci yow nga julli ci ci képp ko xam ne ñu ngi koy askanale yonent bi rek loolu nag ba jamono yi taabee na taabee na ñëpp ci bokk waaw ñuy tuddee ne ay jullit ñëpp kon ci biir salaat gu ci lañ bokk suux na nga màngal li ñeel ma fii mawlidi ci biit weeru mawlidi sil ikraami kay borom terale na nga ma màngal xayral mu naa ngën ci samay bébét wa suuxli ak laaj ba wal maraami ak càkkutéef la yàlla maa ngi lay ñaan ci biir weer yi ma nekk muy rabiul awwal weer wi yonent bi gën a jëmal moom mi borom terale li ma ñaan ci biir weer yi nga màngal ma mooy li gën ci li may mbébét lamay may mbébét la ci féetee kaw nga màngal ma ko jox ma ko lama lay laaj la ca gën nga jox ma ko la may sàkku ci yow la ca gën nga jox ma ko maram aswal almuna gis nga <laughs> ñetti baat almunaawal mu ne la muy mbébét su'aal na mooy li muy laaj yàlla maanaam nag mooy la muy sàkku moom di ko sàkkoo di ko sàkku rek day sàll. xam na nga may lii ñeel ma fii ci biir weer wi maa yëfooku loo xam ne dana kawe sax sa nii sama njort wasan na ak njortoo kudug man yaa asimal man yow yàlla muy aji màgg xéewal ci yàlla may ma ci biir weer wi di weeru mawlidu rasul weeru gu yonent bi gën jamono loo xam ne dana kawe sax man mi ko ñaan sama njort waaye ak kudul man sax nga xam ne samay taalibeeg mboolem mbokki jullit yi rek maanaam ñaan gii bu juddoo yàlla jox ma ko ah nee na waxuma la man sëñ Tuubaa rek waaye ku man sax dana koy sa jot te nee na yàlla nag mën na ko parce que yàlla mooy borom xéwal yu rëy moom du jeexal moo tax mu ne ko xabliya fiihi maa yafuuqu ni wa na xayri yaa asimal man ni nag may ci biir weeru gàmmu loo xam ne dana kawe sama njorto waaye dana kawe njorto ku man yow mi nga xam ne yaay aji màgg ak xéwal wasiqtu dëgërlu naa fii ci biir weer wii di weeru gàmm bil bi ci sa kattan yow yàlla muy aji tedd ji àlla moo ko nii tey aji doyluloo ku la neex fa yow ma an nabi yi ànd ko yonent bi waas tax nii tamay doylu bi ca moom yonent bi sa salaay salaam ci ànd gi ma ànd moom rek damay doylu sëkk neen bu dee baatab dëgërlu mooy wëkkiilu ci yàlla laa koy def ci biir weer wii yàlla mi nga xam ne mooy kër yi bala nga koo ñaan sax mu defal la bala nga koo ñaan mu kattanu la bu noppi defal la la nga koy ñaan moom mi nga xam ne mooy aji doylu loo ku ko neex fa moom nee dëgër lu naa ci moom ci biir weer yi nga xam ne ci lu yonent bi gane a jamono waaye dama ànd ko yonent bi ba noppi doylu ci ànd gi ma ànd ak yonent bi dëggalu ci yàlla nee na loolu dama cee doylu sëkk wasixtu bi rabbil arsi sil joodi wal afi dafa naa ne mu ne maal mustafa maal mustafa wallahu li muxlidun safi waaw nee na dëggalu naa ci yàlla ànd ko Mustafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu ne kon loolu kéemaan la moo tax mu ne wa surtout dëgërlu naa fii ci biir weer yi bil karim ci sa kattan yow yàlla muy aji tedd ji àll moox nii yow muy aji doyluloo ku la neex fa ma an nabi yi ànd ko yonent bi waa tax nii tamay doylu bi ci moom maanaam ànd ki ma ànd ko yonent bi doy na ma sëkk waaye nag bu dee dëgërlu wàllu jiblu lépp yow laa koy jox yow borom bi subhanahu wa taala du ma ko jox kenn ba tey mu dellu waxaat ne ijaal raja yi yow saa borom subhaanahu wa taala ijxal rajaa'i waaw ah, ijxal rajaa'i sarmadan muhaqqaqa yaa man sakartuhu bi nasmin ruqiqa yàlla ijxal defal rajaa'i sama yaakaar sarmadan ba faw muhaqqaqa mu doon lu ñu dëggal mu doon loo xam ne lu ñu dëggal mooy loo xam ne daal lu wóor la danaa ci jot defal sama yaakaar ba faw maanaam bu ma mosoo yaakaar ci yow dara mu doon loo ne day sooy mu doon loo ne day sooy luy olof di wax nàkk yaakaar dara ba noppi di ko séntu ah moom de xëy na suba mu ñëw wala ngoon mu ñëw nangam saa su ñëwee rek <laughs> sa yaakaar tas am na ku yaakaar euh, am na ku yaakaar mbir weeru la mu du ci mën a jot am na koo xam ne ay at mu ngi yaakaar mbir mënu cee jot am na koo xam ne dana dund ba faatu la muy yaakaar du ci jot gis nga. kon kenn ku nekk am na koo xam ne dana yaakaar dara xëy la ko yaakaar ngoon mu jot te kon nit ñi bokkuñ de mu ne xam defal raja yi sama yaakaar san ma daan ba faw mu xaqaqa mu doon lu ñu dëggal yaa man yow mi nga xam ne sa kartuwoo sant nga ko yow yaa yaa man yow mi nga xam ne sa kartuwoo sant na la bi nas min ci wëy ruqiqaa boobu xereñeef na ko yow mi nga xam ne fu mu toll dama lay sant ci wëy yoo xam ne dama koy xereñee di ko rafetal lépp di la ko jox di la ko sante yaw saa borom kon nag defal sama yaakaar ba faw doon lu ñu dëggal yaa man yow mi nga xam ne sakartuhu sant nga sant naa la sant naa la bi nas min ci way woo xam ne ruqiqaa xereñees na ko wéy woo xam ne daa jamono ju nekk dama la ci sant te wéy wuñ xereñee la ah ci nosee ci wéy nee na su ko defee nag sama yaakaar moom bu ko mos a tas mukk de ko dëggal ci waxtu ne ndax du ma dëj mukk di la sant ndax soo ma joxee rek dama lay sant boo may jox rek ma taalifaat geneen xasida daana yaquuduni li kasratil xasaayid yi kaw nu ko indi muksiral fawaid nee na li tax xasaayitam yu bëri leen rek la yónent beeg yàlla ñoom ñëpp waaw saa su ma bindee xasida rek dañ may jox lu bëri nee na lu bëri googu ñi may jox nag damay bind xasida sant le nee na ñi gën maa dolli nag ma gën a bind ay xasida di leen dolli rek nee na loolu moo tax sama xasida bëri naa jeytu ko diñeente nag yow allahuma yow suñu borom bi nisaami ci ak woy yaa xayra man yaw ngën ci ko xam ne yu juru da nga tabi bil insaani bil insaami ci may yu màgg ya yow saa borom yow mi nga ne yow te yow koo jox rek mu xam ne jox nga ko waaw ah, yàlla moom ku mu may rek da nga ne may na la dëgg-dëgg bu dee amaana ku dul yàlla moom bu may mën ngaa ñàkk yëg ne may na la parce que lam lay may xëy na muy ñëw mooy ñàkk solo lool du yàgg sax nga fàtte ko waaye yàlla moom bu bu lay may ah foo mën a jaar ko fàtte moom kay xanaa lenn nga beew kese waaye yàlla bu la joxe xéwal fokk nga di ko fàttaliku léeg-léeg ndax xam ngeen ne xéwal gi bàyyi ko ci kenn ku yàlla loolu mooy wa bi bikum min nixmatin fa min allah mooy cant gën a am doole muy cantu xol ñetti xeeti cant la indi cantu xol ak cantu jëf ak cantu làmmañ wa maa bikum min nixmatin fa min allah mooy cantu xéewal mooy cantu xol mooy euh, loo xam ne daal yàlla rek ca la bayee ko moo la ko defal doon tax sabab bi mën naa bayee ko sa way juru góor wala wu jigéen waaye nag doonal ko na nga yëg ne ci yàlla rek nag cantug cër gi nag mooy jëf gi mooy ixmalu ala daawuda sukuran wa qalilun min ibadi sukur bu dee cëndug làmmiñ nag moo ci gën a euh, féeti suuf mooy wa amaa bi nii mu bi ko fa hadis yàlla may la dara rek nga di ko waxtaanee sa làmmiñ ngir ngir di ngir di ko sant sa làmmiñ kon mu ne naa jeytu ko diyante na ak yow di communiquer ak yow allahuma yow sama borom bi nisaami ci way wii yaa xayr man yow ngën ci koo xam ne juru da nga taw bi la saami ci may yu màgg tubtu tuub naa wa biixtu ta jaay naa la lépp loo xam ne marchandise la mu nekkoon ci man te ma xaraamal ko ci sama bopp wa faraxtu ta teqalikoog nag min huma ñaar yooyee fal taq ni yàlla nag ma fegal alsaahira lay aji feeñ ca ñaar yooyee wal mun bahima ak lay aji nëbbu ca ñaar yooyee yàlla tuubal naa la ne dootuma delluwaat mukk di la mooy loolu moom dootuma ko delluwaat di ko def mukk waaye itam la ma jaayantoon yow dootuma xàcc ca marchandise ma ba tey tey laa ko gën a jaayanteeg yow tàqalikoog naag ñoom ñaar ñëpp waaw du ma mooy yàlla te itam du ma dem ca la ma jaayantoon ak yow di ko jëfandikoo kon nag la ca ak la ca nëbbu yëpp xam nga ko fegal ma ko la ca feeñ la ca nëbbu yëpp tey lore ak lépp lu mën a doon rek te mu nekk ci loolu nga xam ne da nga koo dëxañ te yow xam nga ko yow yàlla li ma jaayante ne yow xam nga ko ndax yow rek laa ko jaayanteeg su ko defee nag du ñàkk léeg-léeg ñun ñu mën cee xam dara waaye nag yëpp ak ak ak la mu làmboo moom mënoo koo xam lam jaayanteeg yàlla moom lépp mënoo koo xam tubtu wa bixtu wa faraxtu minuma ndax lu ko waral moom ba mu koy def diggante mi yàlla rek la doon xool te xam ne ne benn bindeef mënu ko te yàlla rek moo ko mën a seedeel moo tax mu ne tubtu tuub naa woo biixtu te jaay naa lépp lu ma xaraamal ci sama bopp woo faraxtu te teqalikoog nag min huma ñaar yooyee fal taqi ne nag ma fekkal al saahira lay aji feej wal mun bahima ak lay aji nëbbut waa jeex na nga jëmale lii ci man albadala lu wettee loolee fii siru ci lu nëbb woo fil jenri ak ci lu feeñ yaa akramu yow mu yàlla muy aji tedd ji bil haadi ca darajaay te bay aji gindee ja al wafi kay aji matal ak kullre yàlla li ma jaayanteeg yow teqalikoog moom damaa bëgg nga joxaat ma leneen lu ko gën moom lay waxaat ba tey loolu mu waxoon ci wakaana xarak askuruhu wa qaadalil abdala kama kafaanil harba wal jidala yàlla sant naa ko de parce que la ma jaayantoona moom daf maa joxaan leneen lu gën lu wettee lool gis nga wa qaadalil moo tax na nga jëmale ci man lu wettee loolee moo xam ci lu nëbb ak ci lu feeñ waaw ah, lu ko wettee moo xam ci lu nëbb ak ci lu feeñ gis nga faltaqini saahira wal munbahima fii mu ñëwaat na wa jixliyal badala fii shirri wa fil jahri yaa akram bil hadi wa fii gis nga bil hadi wa fii li tax mu indi ko fi mooy xam ne ne yonent bi mooy aji gindee ji waaye mooy kii matal kóllëre kon bëgg na lim si ñëgi yàlla kóllëre gi mat waaye itam bu kóllëre gi matee bëgg na yàlla lam xaraamal ci bopp moom sëñ Tuubaa na dootul ca dellu yàlla joxaat ko leneen lu gën loolu dégg nga ndeysaan malik ni ya moom loo nga ma an sa bakkan bi wala tusalita te doo xirtal ci man wak fi nii yàlla na ma fegal alxawa bànneex ba wal xalataa ak njuumte yàlla fexe nga ba ma tàggat sama bakkan ba sama bakkan daf may topp waaye du ma ko topp te doo xiirtal dara mu di ma yàqal te doo xiirtal sama bakkan bi mukk ma di ko topp mukk kon nag bànneex moom yàlla nga ma ko fegal ba ko topp mukk waaye njuumte itam na ma ko fegal ba du ko def malik nii moom loo nga ma annaf sa bakkan ba wala tusalita wala tusalita te doo xiirtal mukk alee sama kaw bakkan bi waaw daal bakkan bi daal yàlla moom loo na ko ba man koo téyal boppam nga xam ne foo ko neex moom sëñ Tuubaa yóbbu fa bakkan ba te bakkan te du topp bakkanam waaw te yàlla du ko xirtal mu ko ci moom mu di ko yàqal wax fi nii te yàlla nag ma fegal alxawa bànneex ba wal xalata ak njuumte lépp luy bànneex topp bànneexu bakkan ak njuumte yàlla fegal ma ko waaye bul xirtal mukk ci man loo xam ne bu ñëwee rek bakkan bi mën na koo bëgg mën na koo bëgg di ko xemam kon fexe na ba not bakkanam kon ñu yàlla na nu yàlla defal tawfiq ba ñu mën a not suñu bakkan ci malaktu nafsiya wa sax saxtu la an najji nag ma musal wala tabtili nii te yàlla bul ma nattoo yaa rabi yow sa borom yaa xayra man yow ngën ci koo xam ne yun ne ji dana musale wa man ak koo xam ne yurób yi dana yare yàlla yow mi nga xam ne ko musal mu mucc musal ma waay bul ma teg benn nattu wallaay bu ma nattu ndax kuy musale ku ne yaa ca gën yaa ca daqaa musale waaye kuy yare ku ne yaa ca daqaa yare xam nga loolu waxin la doomu dana musal nit léeg-léeg ñi topp la dàq la nga ñëw làqatu ci doomu aadama doomu aadama doomu aadama moo la musal yére ba tey doomu aadama da koy def loolu yëpp ay jukkaloo yoo xam ne ci yàlla la bay ko yàlla mooy musale yàlla mooy yere waaye doomu aadama day yere day musale su ko defee nag ka gën ka gën ci koy musale ka gën ci kuy yere yëpp mooy borom bi subhanahu wa taala kon moom lu ñuy daw di wut ci jaam ñi moom ci yàlla rek la koy wut loolu rek lay jàngale moom Sëñ Tuubaa moo tax ne najji wala tabtili nii yaa rabbi yaa xayra man yu ji wa man yu rabbi nang ma musal te bul ma teg napp mukk di ma fitnaal yow ngën ci kuy musale waaye ngën ci kuy yere waqayte nii fegal nga ma alasi la nga xam ne ixtiraani gaaroon na ma min balaa ci balaa yaa xayra man yow ngën ci koo xam ne xalla sa xettali nga man ka nga xam ne xat ku bila dafa jéngoon waaw dafa jénguwoon yàlla yaa ma fegal li nga xam ne daf maa gaaroon ci ay balaa mu ngi gëstu tukki bi rek ndax natt yi nga xam ne moo nekkoon ci tukki bi te yàlla tegoon ko ci moom mu ne ko nag léegi nag natt yooyu yëpp fegal nga ma ko ndax man kat dafa mel ni dañ maa jéngoon ma tëju nga xettali ma kasawta kama at am tasal xor yi jaa iyan wa min kablihi xalasta yaa xayra man fakaab foofu nee na yonent bi la nee na dafa fekkoon moom sëñ Tuubaa mu xiif yonent bi leexal ko waaye mu raf la yonent bi woddu ko waaye itam mu nekkoon ci ak jéng mu xeetli ko wa min kablihi xallasta yaa xayra man fakkaa cay allah moo tax mu ni ko fegal nga ma li nga xam ne moo ma gaaroon ci ay nattu ak i balaa yow ngënti koo xam ne danga ngay xeetli koo xam ne dafa jéng dafa mel moom ba muy dem ci géej gi dafa tuddoo na maanaam dafa am jéng gu ko tëj léegi na yàlla fexe ne ba xeetli ko dogal ko mboolem buumi jaam yooyu anta yow alxafiisu yaay aji watuuji wal karim yaay aji tedd ji wa wasakoor yaay cantaakoon bi ta yow ak cant faqbal yàlla na nga nangu makaati bi samay mbind yi bi ahsani sukóor gën caa rafetuk cant gën caa rafetuk cant yow saa borom subhanahu wa taala mbind yi de dama koy def di la sant rek ngir li ma defal képp parce que yaay aji wëttu ji te yaa ma yaay aji tedd ji te lu ma la mos a ñaan gàntuwoo ma jox nga ma ko yaay cantaakoon bi dañoo mukk di sant sa bopp te ku la sant nga dollil ko kon nag mbind mi ngal la waaye na ma ko nangul waaw mbind mi na ma ko nangul diwaan bii di fulkul masoon waaye cant yi ca gën a rafet pay yi ca gën a rafet yàlla nag ma ko nangu leen nga xam ne kon fu ne Serigne Touba bi mu taalib yi ci boppam yàllaa ko ci santal boppam moo tax mu ne ko yàlla na nga nangu a ko sant mbind mi waxayte ni fegal nga ma makkara la si ne ña nga xam ne kafaroo dañoo weddi yàlla wa makkar man ak pexem ña nga xam ne xaj jaxadoo dañoo weddi yàlla ba tey wa nafaroo te ñu doon ay kuréel mooy dañoo foñ rek bañu dugg ci yàlla yaa ma fegal pexem ñi nga xam ne ay musrikoona lañ ñi nga xam ne moom ay kaafiroona lañ maanaam dañoo weddi yàlla nga xam ne mosu ñoo dugg ci islam ak pexem ñi nga xam ne dañoo weddi jaxaat moom mën naa doon koo xam ne xëy na mën naa dugg ci lislaam génnaat ci lislaam waaye kafaroo moom mooy koo xam ne dugg ci lislaam waaye seeni max naa benn la rek seeni max naa ba tey benn la tudd moo xam ko ci duggoon ba yàgg nga génn yàlla seeni pexe ñoom ñëpp fegal nga ma leen dégg moo tamit ne wax te nii yi nga si ne pexem gaa ñi nga xam ne kafaroo dañoo xam ne xat jaxadoo weddi nañ wa nafara ay kuréel ñoom ñëpp ay kuréel lañ fekkal nga ma seen pexe tawakkuli sama kiilu kon naka alayka nekk na ci yow dong laa saalo goo xam ne du dañ mukk yaa man yow mi nga xam ne nafaytum dàq nga leen ba mu ko defee wa saaloo ñi gàddaay ani walis ma saalo mooy gàddaay <laughs> mooy baatab gàddaay mooy toxalu daal koo xam ne daal nekkoon na fi waaye dafa toxalu dem feneen euh, mooy la Kaxab doon wax ci xasidaam gi rek ci bana baanat suaadu ba muy tagg saxaabi yi baatab saaloo maanaam daal jéng nañ an tasoola la euh, an saala mooy jéng nañ saaloo jéng nañ mooy li alquran di an an tasoola euh, noonu ma koy waxee ci euh, sóoratu al anham waaw mooy jéng saala jéng na mooy daal gàddaay nañ rek dem nga xam ne nekkatuñ fi an tasula lawla in sàllata lawla in sàllata tawakkuli a dëgër lu alayka nekk na ci yow dong laay sàll goo xam ne du dañ mukk yàlla wallahi du ma dañ mukk di wakkilu ci yow di dëgër lu ci yow ndax yaa man yow yaa ki nga xam ne nafaytuhum dàq nga leen ñoom yéeféer ñoo ñu doon ma sonal wasaaloo te ñu toxloo an walis ma mooy ñi gàddaay dem rek tafadalan gënal nga alee ci man bi taskiri ci ak tàggatal ma noon ya siran moo xam ci nëbb wa ak ci feeñ kala ibadil xiiri ma mel ni ki jaam ñi nga xam ne ay tànneef lañ ndax yàlla dafa baaxoo di leen defal loolu kon moom day jiital lu muy sant yàlla rek moom nag ko yàlla defalee ak nam ko defalee ñeneen darut bokkee moo tax bu ngeen sant Sëriñ Tuubaa am doole mooy ni ko yàlla defalee moom day mel ni bu doon ci mbindeef nga ne da ko far la daal ci gàttal waaye fekk sax du far la parce que parce que fi mu toll yàlla la moo tax mu ne ko tafa dalan gënal nga alee ci man bi tasxiri ci ak tàggat siran moo xam ci lu nëbb wajaari ak ci lu biir kala ibadil xiir mel ni ki jaam ñi nga xam ne ay tànneef lañ na nga leen ko daan defalee daal man dang maa defle lu féete kaw loolu ci tàggatal ma sama noonu ah, boo jëlee ku mel ni non yónente yëpp kenn ku nekk na ko yàlla tàggatale woon ay noonam sëñ tubaa moom suñu borom da koo gënal ci kaw ñooñu tafadalan gënal nga alee ci man bi taqali bi ci ak wëlbati yaa man yow mi nga xam ne la day nekk na fa yow sarmadan ba faw mat loo bi sama càkkuteef yàlla na nga daan wëlbatee xolob ñi nga xamee ne mooy noon yi su ko defee ñi mën a gëm seen yónent yo yàlla mooy baaxoo di def lool gis nga yónent bi ñu ko yàlla wëlbatilu bokk na ci Seydina Omar ibnul Xataab ku xam ne ne ca jamonoy codd ga gis nga naan sàngara lu ñu la daan def raglu jàmbaar ñeme waaye eh, ba yàlla wëlbatee rek gis nga dafa daal di gëm yónent bi salaay salaam gis nga itam Muusa noo ba Ceesa kenn ku nekk yàlla noonu la laan noonu la laan leen tàggalee seen xol yi noonu su ko defee ñi mën a gëm waaw loolu moom boo limee yónent bi rek jarul ngay lim kenn léegi nag loolu nag sëñ Tuubaa yàlla da koo defal moom lu da koo gënal ci kaw ñooñee nam daan wëlbatee seen xol ñoom ñooñee yónent yooyee da yàlla daan wëlbati seen xol yi ñoñ ña ñañ leen yónni ñi mën a gëm yónent boobu yàlla moom da ko cee defal lu koy njortom maanaam gënal ko ci kaw ñooñee moo tax ma ne ko yow yaay ki nga xam ne lamay may sàkku yëpp nekk na fa yow nga xam ne lu muy sàkku rek moom yàlla la koy la koy sàkku waaye du ko sàkku kenn du ko méttul lu kenn bu dee fekkee lu ñuy jàmbat sax du ko jàmbat nit moom yàlla rek moo tax mu ne ko tafadalan gënal nga alee ci man bi tax lii bi ci ak wëlbatil yaa man yow mi nga xam ne la nekk na fa yow sarma dan foofu moddo bi sama càkkute wëlbatil gi may wëlbatil daal sama xol yi noonu ñi mën a mokk gëm ma loolu yëpp yàlla da nga ma ko gënal boo boo daan defal woy baax ña fukk man téeméer nga ma defal da maa gënal seen kaw xalab na nga wëlbati lee ma ma al ahyaana njàccaar ya mooy sang ya wal xulóoba ak xol ya wa suxta yàlla na nga màngal bi kun ci baar barkeb kun fay ko lii jëmee ci man sarmadan ba faw mat loo ba càkkute fi yàlla mboolem xol yi ak njàccaar yi sangu su baax sépp yàlla wëlbatil nga ma sama seen xol waaw waaye nag maa ñaan ci barke kun lañ daan sàkku yëpp nag ma ko màngal jëmee ko ci man loolu moom defe naa ne lu kawe kawe lu foor foor la moo tax ma ne ko xali wëlbatil nga lii ñeel ma al axyaana njàccaar mooy sangu su baax sa njàccaar ya wal xuloo ak seeni xol ya wasux yàlla na nga man nga bikkun ci barke bi kun faykoon lii jëmee ci man sarmadan ba faw mat loo baa seedu càkkuteef lañ doon sàkku yëpp yàlla na nga ko maa ko jox ma ko defe naa ne ku ne layantalee bil Moustapha xulóoba wali bi kun tuwasilul mat loo baa ca xasida gu tudd minenul baaxil xadim fii mu gisaati raqil max doom nee na suñu borom nooylool na ko ci darja yonente bi mboolem xol yi wax na génnwut ci benn waaye lañ doon sàkku ñoom xol yi sax suñu borom nooylool na ko jox ko kon mooy ki nga xam ne mooy kenn koo xam ne dafa ndàmbe li nekk ci ñëpp waaye ba noppi suñu borom defal ko ay jagle yoo xam ne nekkul ci keneen loolu suñu borom moo ko defal